daal boo xam ne euh, vingt et un bu métti yàgg ñu wër dëkk bi kon nag tey bu ñu demee ba toll fii dañuy sant yàlla bu ñu fekkee ne ñëw nañu fii pour voter parce que Sénégal dafa soxla assemblée nationale bi ñu tasee bi fa nekkoon dafa soxla aussi assemblée nationale bi ñu euh, falee président bu bees ba pare kon nag tey mbégte la ñu am rek di woo sénégalais yëpp ñi nga xam ne bind nañ ci liste si ñu ñëw voter parce que lii dafa am importance merci donc ñu àndandoo ak yow ba tey ñu génnee nga gën a waxtaan ak. d' allah merci. d' accord ñu ànd ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Boubacar Camara mu fas yéene rek accomplir euh, li nga xamante ni moom moo di euh, devoir de citoyen daal di rek ak moom ba ci rek bureau de vote bi voilà. ba tey ak ki nga xamante ni. moom moo di euh, Boubacar Camara comme ni ñu leen ko annoncé mu daal di rek euh, wóyal li nga xamante ni moom moo di euh, ci la logique bi nga xam ne comme gis nañ ñenn ci ay leader ñu ci bëri noonee la ñu ko defee voilà mi ngi noonu ñu xool li nga xamante ni moom moo di carte d'identité am xool ba xam turam ndax effectivement mi ngi ci liste bi nga xamante ni nii mooy ci centre de vote bi nga xam ne foofee la war a voter mhm. voilà ñu ngi euh, vérifier ndax turam mi ngi ci euh, boobee list moom Boubacar Camara voilà c'est bon daal dinañu rek gis euh, li nga xamante ni moom moo di turam mu rekk figuré ci liste bi voilà mu ngi noonu commencé di jël na li nga xam ne moom moo di enveloppe bi mu fas yéenee dugal liste bi nga xam ne moomee lay voteel voilà daal dinay rek jël liste euh, boobe mu mel ni que benn feuille la jëlagum benn liste la jëlagum jël na ci euh, jël na bu Pastef euh, daal dinay jël liste ñi nga xam ne ñoom ñoo di PDS waa Takku ba mu ca jógee jël liste Pastef voilà moo rek jëlaat beneen liste voilà mu mel ni moom mi ngi wéyal di di continuer di jël li nga xamante ni moom moo di liste yi Mm-hmm. voilà daldi mm. daal rekk rek jël li mu liste yi nga xam ne soxla na ko euh, dugg rek ci fi nga xamante ni moom moo di euh, ci euh, barrière bi mën a rek ci barrière bi daal di dugal feuille ba nga xamante ni moom mais lay voté dugal ko ci enveloppe bi nga xam ne moom la fas rek dugal li nga xamante ni moom moo di euh, boobee euh, feuille. voilà ñu koy euh, xaarandi moom bu Boubacar Camara gannaaw ba mu jëlee liste yi nga xam ne moomee la soxla. Euh, dugg na ci rek euh, barrière bi maanaam ci ginnaaw rideau bi jël liste bi nga xam ne moom la fas yéene votel euh, dugal ko ci enveloppe bi voilà mi ngi noonu muy dugal mi ngi noonu muy dugal moom Boubacar Camara nekkoon candidat ci élection présidentielle yi la ñu weesu waaye jamono ji mu taxawoon tembe wax nekk parti Pastef waaw def nañu sunu euh, devoir citoyen voté nañu wax nañu ñun sunu wàllu bopp li ñu bëgg euh, ban liste bëgg mu gagné loolu nag sunu kumpa bopp la mais dañu bëgg sénégalais yëpp def loolu parce que réew pour mu dox pour mu dox pour problème yi nit ñi di am ci wàllu ndóol njàng ci wàllu wér-gu-yaram wàllu kaaraange wàllu liggéey alal ji réew ji am moom la ñuy jël séddale ko pour ñu doxal réew mi ci assemblée lañ koy defee pencu ndaw réew mi loolu lay jëriñ député yi ñu fay yóbbu loolu la ñu war a def citoyen yi leen fay yóbbu nag bu fekkee ne demuñu voté ji du tere ñu am député de waaye député yooyu ngay am du ñu am doole ak kàttan bu ñu donc ñëpp dañu war a génn voté te dañu seetlu ne élection pencu ndaw réew lu ci ëpp nit ñi dañ koy xaw a négligé te loolu il foog nit ñi bàyyi ko Sénégal toll nañu foo xam ne fii amatul problème pour participer loolu réglé nañ ko amatul kenn kuy wax ne dañ ma xañ bokk ñëpp bokk nañu ñi war a bokk ñëpp ni nañ seen liste kon choix bi am na li des nag mooy citoyen yi ah mënuloo bëgg dara ba pare bëgg contraire bi mënoo bëgg réew mi dox di ŋàññi autorité yi parce que defuñu seen liggéey ba pare bu ñu waree voté nga dem toog sa kër ñëpp dañu war a voté institution yi dox ñi ñu votel ñu xam ne ñu ngi leen di contrôler donc loolu daal lay def jeexagul nag na ñëpp jóg xam naa ne Cissé Cissé yi ak Touré Touré yi dañuy ndekki añ ba suur doog a jóg mais nañu teel a jóg ñëw voté si jàmm comme ni ñu ko defee nii Sénégal waaw fi mu nekk nii mu ngi dem mu ngi jàll si jàmm dañuy ñaan yàlla rek cat bañ cee dugg waaw fii ba pare bu ñu defee vote bi ba pare ñun am nañu major am nañu maturité boo xam ne Sénégal mën nañ ko organiser kon lii dafa war a nekk fête élection toujours fête la war a nekk boo xam ne dangay ngay yeewu sànc xanaa gisuleen ni ma sàncee yéen ah da ngay sañse ñëw voté ku xam nga ku kuy xeex doo sol yére yi ñëpp noonu la ñu war a def élection kon nag ñu ngi ñaan yàlla loolu sax Sénégal jërëjëf merci alors nous, nous venons d'accomplir notre devoir citoyen en introduisant le bulletin dans l'urne c'est un événement extrêmement important pour nous c'est important parce que nous sommes en train de constituer une institution essentielle c'est l'Assemblée nationale à la suite de l'élection d'un nouveau président de la République. Donc c'est indispensable. C'est non seulement un besoin institutionnel, mais aussi un besoin économique, parce que c'est dans cette Assemblée qu'il faudra répartir le budget. C'est dans cette Assemblée qu'il faut contrôler l'action du gouvernement. C'est dans cette Assemblée qu'il faut évaluer les politiques nous appelons tous les Sénégalais qui sont inscrits sur les listes à venir voter. il n'y a plus de problème de participation, il n'y a pas de problème de choix. Et à la suite de l'élection d'un nouveau président de la République. Donc c'est indispensable. non seulement un besoin institutionnel, mais aussi un besoin économique, parce que c'est dans cette Assemblée qu'il faudra répartir le budget. C'est dans cette Assemblée qu'il faut contrôler l'action du gouvernement. C'est dans cette Assemblée qu'il faut évaluer les politiques nous appelons tous les Sénégalais qui sont inscrits sur les listes à venir voter. Il n'y a plus de problème de participation, il n'y a pas de problème de choix. Les listes sont là, divers. Chacun a développé son programme. Nous voulons que ces élections-là soient l'exemple d'une grande participation, qu'il y ait une rupture dans euh, la, considération du vote pour les élections législatives. qui est de participation très élevé. Donc c'est l'appel que nous lançons. Nous voulons que désormais les élections soient une fête. Vous avez vu l'appel à la prière, donc l'appel au vote. Merci. Merci. Alors... Euh,